Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér te woo asalaamaaleykum mbokki andoonu Setsima ñu leen nuyuwaat di leen ziar saa su nekk seen mbégte suñu bànneex ba koy defee ak yéen comme ni ma koy faral di waxee mbokk yi wax naa leen ko nee naa leen lépp xew fii ci actualité leen koy indi ba mu mat sëkk rawatina li nga xamante ne bi moom moo di people bi nga xamante ne ci la ñuy yëngu mbokki internet yi encore fois li nga xamante ne bi tey moom moo xew démb ca five dañ ci wax wax naa la ko nee naa la fii lépp loo xamante ne bii xew na ci people rek dañu ci daal di taxaw def ci saytu bu baax a baax a baax bokk yi ñu ñëw ci Mame Ndiaye Savon mi nga xamante ne bi digganteem si digganteem ak Sidy Diop wax naa ko ne naa eh, kenn dootu ko lam-laame nekk na loo xamante ne bi lu sincère la ñu gis nag ki nga xamante ne moom moo di Sidy Diop daal di fent way boo xamante ne bii way bu am solo la benn ñaar way boo xamante ne mën naa ne bu ko wayee eh, wayu ko ñu bari way boo xamante ne bii Sidy ko waye ak xol way boo xamante ne bii Sidy daf ko waye ak li nga xamante ne bii tey moom moo di moom moo di cœur waaw comme ni koy waxee waaw dafa ko woyee cœur maanaam woy ko ak yéene quoi donc woy mu nekk ba woy boo xamante ne woy bu cartonné la mu ngi ci woy Mame Ndiaye Savon si ki nga xamante ne moom moo di Bébé Ava waaye ba si ñoom tikkalaaw beeg ñooñu euh, woy wi nekk woy bu cartonné te bu cartonné mën naa ne ñi tax woy wi cartonné Mame Ndiaye ci la bokk ndax Sidi yàgg naa woy lu cartonné macha allah waaye tamit donc way nit woy wa cartonné kan ko woy moo ci teg loxo mu cartonné dëgg la Mame Ndiaye Savon def na ci liggéey bu am solo moom ak bébé Eba si woy bi nga xamante ne bii Sidi Diop woy na ko macha allah mu am lu am Sidi Diop bi mu woyee ki nga xamante ni moo di moom mam moo di Mame Ndiaye Savon dafa jël soiréem tuddee ko ki nga xamante ni bi moom moo di Mame Ndiaye Savon muy démb fële ca five ci biir loolu mu am coow lu rëy coow lu rëy li mooy que ne dañ ciy ñëwaat mooy li waral coow li ba Mame Ndiaye génn def interview Sidi Diop wax ci kaw seen mooy que ne Mame Ndiaye dafa ñëw ànd ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ay nitam comme que nee na way bi nga xamante ne bii moom lañ ko way da koy ngénte mu ñëw ànd ak ñi war a àndal dagg fi mu war a daggee tike jaar fi mu war a jaar war a def li mu war a def ñu teeku ci porte bi loolu moom moo indi coow li maam Ndiaye Savon daal di mer daal ngi naan maam Ndiaye Savon dafa gedd ñii ngi naan maam Ndiaye Savon li mu def waru ko woon def ñii ngi ñaay maam Ndiaye Savon damay ñëw ci ay point point bi may njëkk ñëw mooy Sidi Diop ñu ngi koy attaque naan bon li mu def waru ko woon def patati patata attaqué Sidi Diop pour te dire pour wax leen benn affaire mooy que ne Sidi Diop artiste la artiste boo demee ba am staff dafa am foo war a yem artiste boo dem ba boo demee ba dafa am loo xamante ne bii warutu la sa staff la war artiste boo demee ba am staff am na yu bëri yoo xam ne sa staff ñoom ñoo ko war a lijjanti Sidi Diop mënul jóge ci kaw seen wàcc di jëli Mame Ndiaye Savon loolu bu ko defee ñu ne ko sa pas professionnel and sa staff nañu waxante dëgg benn ñi attaqué Sidi Diop si laa ñëw damay ñëw léegi ci Mame Ndiaye Savon ñëw ci biir bi ñëw ci Five aussi Sidi Diop la wax naa ko léegi bu waree jógee ci kaw seen war a wàcc dem jëli Mame Ndiaye Savon ñu ne ko li nga def sa pas professionnel parce que tamit du artiste bu ndaw artiste bu mag la ku dem ba war a tëgg zénith dootoo artiste bu ndaw nañu waxante dëgg benn ñaareel ba mooy c'est pas première fois Sidi li mu wax démb ci kaw seen waa Five wax ko Wizkid c'est pas la première fois mu koy wax te loolu du yoon en tant que artiste nga taxaw ci kaw seen wax na sama ñii ñu may dooleel bàyyi leen di xeex ñoom bàyyi leen di leen téye support loolu sax c'est pas normal sax parce que lool sax staff moo war a loolu mais nit ki artiste da ngay foo xam ne bi da ngay maar tamit nañ waxante dëgg di amul lu ay nitam amul lu dul ay fagsam ñoo ko dooleel wax na ko ñoo ñoo ko ñoo ñoo ko indi fii Sidi ñu ko doon topp ravin maa ngi fa bi muy door man ak moom la woon xam naa lépp ñi koy topp ravin am na ñoo xamante ne ba tey ñoo koy topp ñoo koy dooleel ñoo ñooy yéeg di jël alalam di ko may ñoo ñooy jënd ay billets donc ñooñu bu ñu defee seen déplacement ak bàyyi seen nelaw bàyyi lépp bu ñu ñëwee biir faay dañ leen war a respecté jox leen cër dañu waxante dëgg dañ leen war a jox cër ju respecté leen jox leen cër Sidi nag li mu mën mooy wax ak du xeex ak kenn parce que artiste la am na loo xamante ne aussi staff bi moom moo ko war a lijjanti moo ko war a teg ba mu leer naññ bu fekkente ne coproduction ngeen signé ngeen wax ak coproduction yu leer naññ ne lii ak lii ak lii ak lii mais Mame Ndiaye Savon am na yeneen soirée yu mu war mu waroon mën a dem mais boo ko fa bàyyee ñëw soirée Sidi c'est parce que colère bi mu am ak Sidi la wax na ko nee na moom du génn du dem fenn du dem soirée kon bu ñëwee ba ci mëntu ñu téye ko du yoon ñaar dama ñëw ci visite bi benn aussi ñaar damay ñëw ci exige Mame Ndiaye def na nag erreur bu tuuti erreur bu tuuti mooy que ne boo defee déplacement ak dérangement ñëw ba ci buntu soirée mu wane la artiste bi moo la tax a jóg boo ñëwee ci buntu ñu la takkal bracelet da nga war a takk bracelet parce que visite bi moom tamit benn instant moom li ko fi tagee mooy ku fi takkul bracelet bu mu fi dugg moom loolu mooy liggéeyam donc yow mi nga xam ne ñëw nga ci porte bi ñu ne la takkal bracelet takkal sa bracelet nga dugg def si soirée demaat ñibbi. mais maam Ndiaye jàpp na ne ay noon la ay clan la am na lu rax ci biir am na liggéey pour man jàpp ma ne ay clan la ay kii vigile bi dafa def liggéeyam mooy que ne dafa taxaw ñu ne ku takkul braza bu fi dugg takkul braza ñu téye ko mais benn erreur bi fi mu amee mooy staffu Sidi Diop parce que ki nga xamante ni bii moom moo di maam Mame Ndiaye Savon li mu wax leer na nee na ñëw papa Samb ñëw na ba ci biti ne ko kii mooy maam Ndiaye Savon moom laay jël si ma foofu moom laay jël si amu ci kii tuddee la dafa def déplacement dérangement jënd ay table war a am xaalis boo xam ne da ko war a teral Sidi Diop Sidi Diop loolu ñu koy teral si lay teral staff bi kon staff bi am na yu bari yoo xam te ni ñoom ñoo ko war a lijjanti ñoom ñoo ko war a lijjanti ba mu leer papa Samb bu wàccee ne kii laay jël si du yoon da ngay ñëw jàpp maam Ndiaye Savon jël bracelet takkal ko ci loxo jàpp ko mu dugg. moom Ndiaye Savon bu duggee buy xotti bracelet mu dindi ko bu koy dindi mu dindi ko mais moom na fexe def pexe ba mu dugg mais am bu amul droit taxaw ne kii laay jël si déedéet même bu ko moom moom bu ko deful war na am kenn ko xam te moom mooy volonté wu ko xam te moom mooy toppatoo ñi nga xam te ne ñoom ñoo jënd table ñoom ñooy invité yi teg leen ci ay conditions yu leer bu ëllëgee ñu am fit mën a jóge seen kër yi ñëwaat baal si ci Sidy Diop loolu moom mooy yoon ñetteel ba mooy que ne vigile yi nga xamante ni bii tey ñi ngi biir five di xoqotal ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo di fans Siri Diop yi c'est pas la première fois wax naa ko du benn yoon ñu koy def du ñaari yoon ñu koy def Siri Diop c'est pas wax naa ko sànq nee naa ne du yoon du c'est la première fois muy taxaw ci kaw seen am na xeex boo xamante ni bi benn vigile moo doon xeex ak ki nga xamante ni moom moo di fans Siri ci biir boîte bi donc c'est pas normal Bassirou Diop jël micro bi di wax ne bàyyi leen sama fans yi nga xamante ne ñoom ngeen xoxatal ci biir boîte bi ñoom ngeen xeexal ci biir boîte bi te loolu c'est pas normal nañu waxante dëgg loolu du yoon vigile bu ñu la tegee ci yoonu vigile dafa am noo xam xamante ne moom nga war a doxalee vigile sax nee na la yow ci biir boîte waroo fa xeex boo gisee ñaar ñuy xeex sax yow waroo xeex wala ngay coppati leen ñoom ñaari génne leen ci biir boîte bi pour soirée bi bañ a yàqu mais léegi dafa mel ni dañoo teg ci yoon parce que am na bisul yoo xam ne da ngeen xool respecté leen jox leen cër xam ne ñii dañoo wax mën seen liggéey xam nañuy def mais am na bisul yoo xamante ni dañuy ñëw rek am doole ñu teg leen ci benn kii xamuñu seen doole te loolu c'est pas normal il est waa Five ngeen xoolaat ni ngeen doxalee parce que Sidy du artiste bu ndaw artiste bu mag la wax leen ko nee na leen am na feneen fu mu mën a jouer mais colère moo tax mu des fi nga xamante ne moom moo di Five ba tey donc yéen aussi il faut ngeen xoolaat bu baax a baax ni ngeen di doxalee il faut ngeen xoolaat bu baax a baax ni ngeen di doxalee ci boîte bi aussi dañu waxante dëgg Mame Ndiaye Savon conseil bi ma lay jox mooy que ne Sidi way na la way wu neex nañu waxante dëgg Sidi way na la way woo xam ne mosu koo way kenn Sidi bokk na ci ni nga xamante bi tey mën naa ne ci sa histoire la ñuy doon parce que way bi mu la way boo xoolee ñëpp snap nañ ko macha allah way bu neex way boo xam ne wax naa ko naa yéene la ko waye donc bu mu tax nga bàyyi Sidi bu mu tax nga gedd soiréem di sa xarit la sa doomu ndey la sa lépp la ku ne xam na seen relation yéen ñaar benn conseil laa lay jox dëgg la mer nga wax nga mais man dama lay ñaan di la wax ne la samedi demal nga def sa soirée ba mu neex nga ngénte sa son parce que son bi am na ñu bëri ñoo xamante ni bii wax dëgg yàlla buñ sañoon son du jëm kaw parce que say noonu lañ donc bu fekkente ne da toog ne doo too dem doo dem ñooñ dañuy am lu ñuy wax demal nga jël sa teraanga jox Sidy son bi sa son la way ñu ko kenn yow lañ ko way demal nga ngénte sa son ba mu neex erreur la boo xamante ne bii am na te bu leer na ma ne li am am parce que Sidi wax na ñi mu war a waxal staff bi ñoom tamit waxtaan nañ ci seen biir xam nañ ne la parce que erreur mënul ñàkk ci li nga xamante ne bii moom moo di staff chaque jour musicien international yi sax chaque jour da ngay gis ay erreur yoo xam ne ay failles yoo xam ne dañ koy def mais bu ñu toogee waxtaan dañuy xam ne lii erreur la mais dootuñu ko defaat loolu mënul ñàkk ci artiste mais yow Mame Ndiaye Savon li ma lay wax mooy nga dem ngénte sa son bi parce que son bi dafa toj àdduna international man ay américain lay dégg ñuy ñuy sinap son bi te xamuñu sax li son bi di wax kon son bi son international la demal nga ngénte sa son ànd ak ñi nga war a àndal ànd ak sa staff ànd ak say fans ànd ak say doomu ndey nga ngénte sa son ba mu neex toj àdduna waaw loolu moom mooy yoon encore une fois mbokk internet yi dañ doon ñëw rek tuuti rek ci li nga xamante ne moom moo xewoon démb ci five di leen euh, joxaat dig daje beneen yoon fii rek lay xewee ci actualité people Setsima TV ak Junior Vitamine C de sa génération maa ngi leen siyaar bu baax a baax Setsima TV, l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur. TV, xibaar yu wér te